yi. dossier bi moom xam nga damay nekk à l'aise wax ci. Mhm. parce que yow ñaata yoon nga ma invité fii ma wax ni dossier bi complot la ba ma koy wax. ba boo interroger je sais boo laajee sa technicien ñu daggal la première émission yan def. Mhm. sur le dossier boobu ak Moussa Farr ñu bëri ñu noo wax. Mhm. boo fàttali koo yow mii. xam nga ni bañ ba ma ciy wax man. ba coow lu jógee ba coow lu jógee ba ma ciy wax man. te aw ma woon ay firnde yu leer comme de. ba ma ciy wax man nii la ma leere woon yàlla xam na ko dama la ko doon wax sax yow xam nga li ma lay wax ne la man aw ma werante ci ni complot te booba fa muy mujj yàlla na ko leer nii la ma leere woon yàlla xam na ko te booba def ma dul analyser le contexte analyser des éléments du contexte yoo xam du n'importe qui moo ko mën a gis ba ma koy wax man mhm. booba comportement waa APR sax dama ko doon boole samay analyse mu may jox ay firnde nen maanaam bi mu ma gis waa APR loolu rek silence rajo silence rajo silence télé yow yaa ngi fàttaliku loolu mm-hmm. loolu moo doon sama premier indice <laughs> bi ma toogee gis coow li jóg gisuma benn nit bu bokk APR mu wax ci ñu dawalaat quelque temps rumeur yi daw ni dañ leen wax bu leen ci wax mm-hmm. ku leen ko wax ma ni ah yaf yaa ngi bëgg a leer booba xamaguma ni Mamour jàlloo na ci ginnaaw xamaguma kenn mais mu leer ma nañ à travers benn indis boobu rek que nguur gi laale nañ ci ma dem nag di xool yeneen élément di am yeneen élément di déglu ku nekk di wax may déglu les témoins di wax. Mhm. ma am position mu la nañ ma déglu avocat tappale katam bi di wax ak di wër ci télé yi ma gis ne du bëgg terroriser nit ñi. Mhm. pour jëm a gëmloo ay kàcc. ma taxaw man damboj ni lii ay kàcc la complot la Adji Sarr kenn violé wu ko dil bi claté na yooyu laa mhm. doon wax jamono jooju soo fàttali ko yàlla may na ma ndam te wut wutuma ci woon. Ah, ndam ndam ndam teelul daal ma xam ma xam. non non yàlla may nañ ndam déggoo li ma la wax ca laay yàlla may nañ ndam. Mm-hmm. mooy sénégalais yëpp d' accord nañ ci ni. Adji Sarr kenn violé ko moo ko waxal boppam. xam nga ndey mbil gi li mu wax moo tëj wax ci parce que bi mu demee ci Maham Diallo ñu ñu ko moom Adji saar bi MC Niass déposé. audio yi bu doon euh, daa dem contesté ni du mooy wax mais daa dem ni am Diallo lii ma wax. lii euh, lii lii nekk ci audio yi man la moom weddiwu ko moom Adji Sarr devant le juge d'instruction pour man wax ji jeex na parce que juge d'instruction lim soxla woon mooy Adji Sarr peut-être euh, ñëw wax dëgg mais wax na ko dëgg parce que Adji Sarr wax na ci audio. Hmm. juge d'instruction bi entendre na Adji Sarr Adji Sarr ne ko man maay wax ci audio yi. mais am na ñu ne audio ay coupure ah ñoom. yooyu ñu ay coupure non non amul benn coupure coupure bi mooy ay dafa dajale ay audio. Hmm. parce que MC Niass euh, clé la jox. kala la jox mais dagguñu benn audio ci digg bi amul audio neexul a dagg de ak ah, naqaree dagg yoral sa audio nga bëgg koo dagg du noonu de kenn daggul audio yi. maanaam manipulation bu dugg manipulation bu dugg mais Adji Sarr moom doom nee moom la. ay audio yi bari la tey ji boo yoroon cinq audio nga bëgg leen def ci clé mais bu audio bu njëkk bi jeexee day am coupure ñu doog beneen audio bi doogay dugg loolu la rek audio yi daa bari parce que ay enregistrement la xam nga MC Niass da leen a nax. MC Niass li mel na mooy bi ñëpp di attaqué Adji moom daa défendre Adji Sarr. Mhm. mais ba mu koy défendre la mu ca bëggoon mooy ñu may ko mu togg ak Adji pour am dëgg comme taalibeem la. bi mu déggee taalibe Baye Niass yi naan Adji Sarr du taalibe daa taxaw défendre ko publiquement ne Adji Sarr taalibe la parce que Baye Niass am na taalibe yu baax am taalibe yu bon sëriñ boo fi jël am nay taalibe yu baax am taalibe yu bon bon du tee nga nekk ab taalibe léegi nag. Mhm. kon mu ne moom même bu bonoon néewul woon ba Adji Sarr daa bon de dani même bu Adji Sarr nekkoon nit ku bon. am ci njaboot gi la bokk mhm. kon bu leen ko génn ci taalibe Baye Niass léegi nag Adji Sarr xelam dal ñi doon ko encadré tamit seen xel dal ñu bàyyi ko mu wax ak MC Niass MC Niass enregistré ko ko mu wax ko lu leer nañu yebbee ko daa yebbee ko mën a am ab journal tàppalekat journal quotidien lii lii quotidien naan ay non ndëgg sërëx yéen tegal MC Niass ban ndëgg sërëx Adji Sarr wone fan naïveté boo dégg la woo jooy mais naïveté une fille qui n'a rien compris nan lay tegale kenn ndëgg sërëx une fille boo am si bu muy wax waxi dof lay wax ak di dakk sa ci téléphone bi naa ko ah bi ko MC Niass ne dama lay indil ba ah, ah, dama Cheikh Ibrahima dafay dafay daa di daa daa dakase tàccu wane ni moom kontaan na te naan ko mbaa doo dugg sama vie privée ba noppi di génnaat booba ma ngay wut ay assurance kuy tëggal nëg ndëgg sërëx nit doo def noonu parce que boobu xamul woon sax ñu ngi koy enregistré sama gaa yi nañ bàyyi seen tappale yi boobu mi ngi waxtaan ak moom naturellement ñun nag nous sommes des nee na MC da ko bëggoon a takk non mais MC bëggoon bëggoon ko takk looloo pour wàññi doole euh, audio euh, parce que mun ñu weddi ni Adji Sarr ay wax lool xam nañ comme xam nañ ni mun ñu ko weddi parce que sénégalais duñ ay dof ñëpp gis nañ Adji Sarr ay wax léegi lañ bëggoon mooy wàññi doole la Adji Sarr wax naan non MC Niass da koo bëggoon takk waa Moustapha nit dina la bëgg a takk nga koy wax ñi lay laal lu mu wax ci audio bi di lim gars yi naan ay doomu raam lañ. doomu raam la leen wax et puis man de j'ai dit ñoom ñoom fukki kilifa ak juróom-benn yooyu mu lim teg ni leen ay doomu raam ngeen mais ñoom duñu wax a du ma wax ne ñoo ma def wala defuñu de parce que Adji Sarr moom ab kàccikat la. Mm. man xam naa ne ab kàccikat la bu leer loolu moom ay tantam wax nañ ko am na tantam bu leer boo doon sëy ak nijaayam bu wax mu leer nañ ci bi coow lu jógee ne Adji Sarr moom fenkat la Ndeye Khady Ndiaye mi ngi yore woon ci biir salon bi nee na fenkat la li muy wax dara donc moom ñoom bàkke nañ ko fenn moom mais moo tax man mënumaa wax ne ñem jéñ ne euh, euh, ne ñam nañ man munu mënumaa dëggal ne ñam nañ. mooy mooy liste seize mooy liste personnes bi yow. waaw non man man duma ko weddi duma ko gëm mais dama ne duma comme ab fenkat la damay teey ci li muy wax mais dama laa bëgg wax ne la mais man li ma comprendre déer bu ma amee lu may xaw a duti rek mooy loolu ko nan lañ ay kilifa yu mel noonu xale bu jigéen bu mel noonu ñëw taqal leen lu mel noonu kenn ci ñoom tontuwul. kenn wutul sa jege ñaane mu tontu kenn ci ñoom porté wu ko plent ñoom ñëpp ñu def silence rajo kenn waxu ci mais mu Ba lii teyul sa xel man de ku ma jiiñoon loolu. nga taxaw Sénégal ak gépp la dégg ma yore sama njaboot nga ne damaa ñam ñam naa la mais damay ñëw taxaw porté la plainte mais ñoom ñëpp kenn waxu ci ñoom ñi ñoom ñoom parce que dañ koy bañ jox importance bi wala. non déedéet ñoom ñooñu ñëpp ñoo doon wër ci télé yi di wax ne na Ousmane Sonko dem def test ADN. ñoom ñooñu kay dossier bi intéressé na leen mais yow Adji Sarr ñëw jiiñ la lu toll noonu et puis ay kilifa yu toll noonu ci réew mi mais c'est extraordinaire donc vraiment y problème à ce niveau mais beneen problème bi mooy maam euh, mooy euh, Adji Sarr ci audio yi dafa wax mu leer nañ lañ doon wax ñun xam nga dafa am njëkk am audio bu fuité mooy audio 18 minutes ba. Mm-hmm. bi Mamour Diallo naan tëjal leen ma fenêtre yi ak bunt yi. ventilateur ventilateur yi ak xaaral ma fay sama téléphone bala ñu maa mm-hmm. boobu lu mu doon def ak Adji Viviane ma ko doon ma macro nag duñ ko woo léegi du ñu du ñu woo Dior bala ñoo clôturer jugement am Diallo bala moo clôturer du woo Viviane ma nga xam si ca audio 18 minutes ba may ma rek ma ñëw ca audio 18 ba du moom lañ cité mhm. moom eh, moom moom Viviane Viviane naan ko aji Viviane Wade bi moo si ban soxna moom moom moom lu mu si Viviane mhm. Viviane mooy macro bi mooy ki nekkoon ci 18 minutes bi te naan Adji Sarr waxal ak sa tonton. ah ok ok. boobu Mamour Diallo toog Adji Sarr Adji Sarr a doon euh, enregistré Mamour Diallo. ah kookoy Viviane waat. kookoy mm-hmm. naan ko yow Adji waxal ak sa tonton. ba benn instant tonton ne ko yéen génn leen may ñu. ñu génn ñoom ñu ne mun tëj leen bunt bi. léegi après mu tëj euh, mu fay ventilo bi. après lu def mu ne naa fay sama téléphone. léegi ba mu paree lu mu def. ah Fodé Ojo ba yem léegi enquête ko leeral. beneen bi mooy Viviane moom duñ ko woo pour laaj ko dossier bi lu mu ci joué Dior Diagne ak Pape Samba Sow Gabi du dañoo xuloo ba dem euh, ci kanam seen kilifa devant le bâtonnier du dañoo xuloo dem ba ci bâtonnier bi bindante ci presse bi ku nekk attaque sa morom ku nekk jiñ sa morom di yaa bindi plainte bi parce que plainte bi quand du n'importe qui moo koy bind man mii sax malgré niveau intellectuel plainte boobu mënu ko bind parce que article yi dañuy visé mm. soxla soxlawu ko woon sax en réalité li ma gëm man parce que booy porter plainte du yaay wax juge bi ban article lay daane ki la tooñ da wax rek li la def. donc foofu foofu tamit foofu tamit waaw voilà da nga yow da ngay wax rek du yaay visé visa yi c'est le juge qui le fait mais yow da wax li la def. Mhm. moo lay wan ne foofa sax avocat yooyu di tuumalante ñoom ñaar ñëpp ku ko ci mën a bind ab cuune nga. Mhm. parce man jàpp naa ne man de su ma amoon problème naa ne wala boog dañoo yéene waa ji yéene nañ Sonko mu dee bañ def erreur boobu dem di viser article lu leen feeñal bokk nañ ci maanaam dossier bi yàlla da ci da koo teg da cee teg lu luñ ci def ñoom dañoo daanu même plainte bi nañ ko bindee dañoo feeñ ni dafa am ñu nekk ci ginnaaw parce que Adji Sarr mu naïf mi bu demoon taxaw di bindu plainte du ko bindee noonu maanaam ba ñuy bind bi sax dañoo desee ay maanaam yéene nit ki dee nag taxul mu dee gis nga ñoom moom moom Dior Diagne dañ ko war a woo def na fi loolu maanaam moog Gabi werante nañ ku ci nekk ni sa morom yaa bindal aji saar plainte bi kon dañ leen a war a woo ñoom ñaan ñëpp Maham Diallo di leen a war a woo bala moo clôturer l'instruction da leen a war a woo un euh, def na beneen affaire mooy doon na envoyé SMS mu dal ci ci mu dal ci Bamba Cissé avocat Sonko ci kenn ci avocat Sonko mhm. mooy message boobu nga xam te doon wax ne nañ yàq deram mhm. ne nañ yàq deram ba koy nuróoleeg euh, Dominique Strauss-Kahn mhm. yaa ngi farla ko SMS boobu te asamance boobu ça a été authentifié huissier constaté na ko Dior Diagne ko envoyé léegi moo tax avocation